Sénégal mooy réew mu doy am sa kër jënd ko sa titre foncier yow Ablaye Sylla ñu jóg ni kër gi nga moom mu titre foncier amuloo droit defaraat ko bu gën a rafet syndic boobu nekk mangrove sali ni ko amoo droit defaraat li nga jënd yóbbu ko tribunal tribunal atteegul DSCOS ministère urbanisme ak ministère des forces armées mooy gendarme yi dem toj kër jàmbur moo tax Ablaye Sylla jël avocat yi nga xam ñoom la yaakaar ni avocat yu mag lañ macha allah buri xam-xam ti am jom boo jëlee maître Assane Dioma Ndiaye mu ngi ci biir maître Babacar Cissé mu ngi ci biir maître Ali Fall maître Seyni Ndione ak maître El Hadj léegi nag koy coordonné mooy maître Demba Ciré Bàcce loolu mooy groupe bi nga xam ni ñoo taxaw pour que réew mi xam ni li ñu wax ci presse bi di yàq deru Ablaye Sylla naan day jaay doole ndax dafa jege président de la république Macky Sall ak jabaram loolu dara du ci dëgg Ablaye Sylla dafa taxaw ci réew mi taxawaay kuy dimbale réewam mu pour jëm kanam bëgg réewam am xam-xam am fulla am wut doole ba am ko pour liggéey Sénégal ci kaw loolu masuñu ko jox benn terrain masuñu ko may benn mètre carré ci réew mi lu mu am moo ko jënd marché yi mu gañee benn ku ci gré à day def dañuy def appel d'offre mu mën leen duma jël marché yi ndax ñi fi wax yi taxawaalu yëpp Abdoulaye Sylla leen mën ëpp leen fulla ëpp leen fayda kon bu ko appel dafa amee da koy gañe loolu nag tax na ñu bëri mere ko een ko bañ ko soxoree ko mais li ñu di yëgal mooy ñu bàyyi affaire bi sedd ñun avocat yi ñu jël suñu client ñu yi jàmm la masul jël benn bandi mu taxaw foofu naan day xeex ay gendarme loolu yëpp dañ ko sos masul jaay doole kenn dañ koo jaay doole oui waaye rek yàlla rek mu am doole te nag Sénégal am na justice boo tax porté nañ plainte avocat yi dañ ci taxaw tem defoon teg ñoom ba mu saf sap ñu xam ne réew mi réew yoon la te Abdoulaye Sylla ku fonk yoon la kon ñuy jàll jàdd yoon def lu leen neex ndax soxor bon iñaan di leen ko digale ñoom ba sagar xeeñ